jërë ngeen jëf euh, mbokk yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu réew mi FM mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu dellu si waat ci seen émission pencum euh, réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ngeen di sànd ak euh, Abdou moom a du Diaw Diallo moo nekk ci wàllu machine bi mbokk yi tey ñu invité Youssouf Ahmed Bengelloune tur bi nag xam naa bu ngeen ko déggee seen xel dina dem ci <laughs> conseil départemental bu kaw Kaolack Bengelloune maa ngi leen nuyu. maa ngi lay fay sëñ Abdou Khadre di nuyu mboolum sa auditeur ak waa Sénégal yëpp ñi nga xam ne ne ñoo ngi ñuy déglu. benn euh, Bengelloune yow nga jiite benn mouvement bu tudd euh, Nouvelle Vision euh, pour Kaolack élection locale yi nga demee woon ci coalition ànd nawle nga nekkoon candidat coalition ànd nawle ci conseil départemental bu Kaolack élection yi nanga ko dundee. waaw xanaa rek sant yàlla rek ak jàmm ak salaam lañu dundee élection yi nekkoon. moment boo xam ne ne permettre nañu ñu saafante Kaolack waaye jébbaleen seen programme yàlla def alhamdulilah bu ñu leen bu ñu leen joxee suñ pro suñ programme ñoom ñu adopté ko looloo tax ñu tànn ñu majoritairement teg ñu ci département bi donc nekk na moment boo xam ne ne maa ngi ci sant yàlla bu baax moment bu riche la woon en enseignement jàng naa ci nag lu bëri wax dëgg yàlla Euh, euh, élection yi passé na waaye ba léegi nii mën nañ ne euh, ñoo ngi si prolongation yi yow ñu wax ne yow yaa gagné conseil départemental bi ñu demoon sax ba jàpp ne dañ la war a installé préfet daal di dàqaat loolu mbir mi lu tax lu waral loolu. waaw comme na ngeen ko yéegee rek. élection yi résultat yi dafa génn ñu proclamer que ne coalition ànd nawle bi nga xam ne maa nekkoon candidat bi ci département bi gagné na avec cinquante et un mille voix. ñu rawee maanaam benn bokk yaakaar 1756 voix xam nga ni loolu nekk lu ndaw. benn bokk yaakaar jël deuxième. léegi waa Benno nag notamment suma challenger. Bitèye euh, euh, dafa def recours comme nu ko yoon maye daal di koy introduire recours bi nag mu ngi doon euh, contesté ay yenn ci bureau de vote yi xam naa dinañ ci dikk ci lu tax. ci yan argument la dugal léegi nag bu mu defee recours ñu ni tamit def nañu recours parce que tam ñun gis nañ ne yenn ci bureau de vote yenn yu nekk ci yenn commune rurale yi gis nañ ne affaire dafa am gonflement mu nekk ñaari recours après euh, le préfet nag bu mu gisee résultat yi comme nu koy yoon waxee mu daal di jël décision installé ñu ci noonu la jëlee benn notification bëggoon leen installé waaye décision dafa jël décision pour installer ñu maa ngi maa ngi ciy dikk. Mm-hmm. ci noonu la jëlee notification le 8 février daan nañu dinañu installé ñun ñi nga xam ne na ñooy conseil départementaux yi nga xam ne ñoo génn ci résultat yi provisoire yi mu ne le 14 février bi passé ci la ñu war a installé ça c'était le 8 le 12 mu jëlaat beneen euh, kayit. envoyé ñu ne ah installation bu ma bëggoon dama koy dàq ba beneen ndax dama jot ordonnance premier président cour d'appel bu Kaolack monsieur Ousmane Kane moo ko wax ne ko na dàq installation bi bu ñu vidé recours bi mu nekk nag lu dooy waar. exception. exception parce que yaa ko waxal sa bopp gis nga ne Thiès am na recours te pourtant samp nañ euh, monsieur Babacar euh, Diop. te terewul recours baa ngi dox samp nañ ko ñoom dégg naa sax Thiès audience bi mardi prochain lay doon. Mbacké am na recours te pourtant monsieur Abdou Aziz Ndaw la defe naa président conseil départemental bi samp nañ ko. même même commune Mbacké galo ba euh, Abdou Mbacké Ndaw mi jiite commune def na def na recours te Gallo installé nañ ko. voilà gis nga donc Abdou Ndaw defe naa ko Mbacké la wax ak tamit euh, ngeen gis ne Rufisque Ismaël Madior mi xam ne ne candidat dafa def recours terewut samp nañ ki nga ki ñu wax ne moom moo a te xam nga ne si le retour recours était suspensif Ismaïla Madior xam ne képp ku fi jàngale droit xam ne fii kàngam droit la ñun ñii di waxantu droit sax ci moom lañ jàngee si le recours était suspensif Ismaïla Madior kenn du ko njëkk a wu ci installation euh, challenger am bi moom it. même cas Pikine aussi. cas Pikine donc cas yi bëri lu tax nag ñun lu ñu jaaxal lu tax Kaolack nangaan bëgg a nekk une exception ci Sénégal mel ni Kaolack bokkul ci Sénégal wala bokk. xanaa kii nga xam ne ne moom lañ jàkkaarloo duma ko duma yu métti moo jaaxal gars yi nga xam ne ne moom ak ay milliards am ak boîte bu rëy bi muy diriger le directeur général de la Sénélec ak achat de conscience bu mu nekkee woon xaalis bu bari bi ñu joxe ci campagne bi yëpp ñu jël leen benn xale boo xam ne ne à peine 40 ñëw daal di koy gagné xam naa loolu moo leen jaaxal wala boog directeur général bi tamit xam naa dafa bëgg fa sauver postom moo tax muy jafandu mais du def lu dul jëlal. Euh, guddal jël gi rek. d'accord mais euh, mais Bengelloune li ñu jaaxal tamit te jaaxal sénégalais yu bëree bari mooy comme ni ko expliqué nii euh, même 2014 lu mel noonu amoon na Podor ci Aïssata Tall Sall ñu gis na tamit fi nga xam ne mooy ville bu Pikine mhm. Abdoulaye Timbo moom la ñu wax ne moo gagné. Euh, te Cheikh Dieng dafa def recours te teewul installé nañ ki nga xam ne tey moom mooy Abdoulaye Abdoulaye Timbo euh, lan nga jàpp yow ne moo waral loolu ci benn réew boo xam ne gis nañ ne fii lii moo fa am fii euh, safaan wa am fa. waaw loolu mooy jaaxal ñëpp ah man fu mu ne nii lu ma jaaxal mooy ci benn réew ñu bëgg fekk indi ñaari catégorie de droit dama ne soit man lañ yëpp wala bokk comme nu mu koy waxee rek directeur général teg na leen pression boo xam ne ne utiliser administration bi ak justice bi looloo waral loolu loolu moo waral lii nii mais nag ñu xam ne du jàll. d'accord léegi moom yan argument la indi moom euh, Pape Demba bi tey. argument yu mu indi ci recours bi dafa njëkk a viser ay euh, bureau de vote yu nekk commune Kaolack lu ci mel ni Touba Ndorong Ndorong extension euh, ak Medina Baye. ay bureau de vote yi nekk ci commune Kaolack nee nañ bureau de vote yooyu dañoo war a annuler bureau de vote yi ndax ni ñoom nit ñi voté wuñu ndax dafa am ay xaj yoo xam ne ne dañ leen fi indi woon xaj yi ñoo doon tiital nit ñi ba nit ñi voté wuñu loolu mooy premier partie bi mu nekk ay wax caaxaan parce que procès verbaux yi nga xam ne ne mooy firnde lu nit ñi vote ak ñaata voté ak kan lañ voté ci procès verbaux yooyu il est mentionné nulle part qu am na benn incident bu xew ci commune Kaolack gisuñu ko ci. RAS lañ ci bind ñoo ngi yor procédure ñun yor nañ ko kon loolu nekk affaire caaxaan beneen bi affaire xaj yi su doon noonu xaj am na ci bureau de vote yi ani force de l'ordre yi fan nañ nekk ñoom wax jooju sax dafay mel ni ne force de l'ordre yi la ñuy saaga beneen xaj yi xanaa dafa xàmme suñu militant ak militant ñoom Pape Demba bi tey mu nekk wax yoo xam ne ne wax ko daanu ci sareet la wax koo xam ne ne dafa doon nalaw gént gis xam naa gént ay xaj rek daal di yeewu ñu nekk duma nañ la duma yu métti mu ne xat bi ma doon génn a tax ñu duma euh, beneen bi tamit euh, luy wane ne wax ji tegul fenn gis nga lu génn ci Kaolack ndàngaan ak ci bureau de vote yooyu noonu mu wax ne ne nit ñi voté wuñu wala ay militants voté wuñu dafa jéggi dayo record historique li génn ci Kaolack voté mm-hmm. gëj nañ ko gis depuis bu Ablaye Wade di fal deuxième tour. te élection locale nit ñi xamuñ ci woon sax taux de participation bu rëy bii nii la population de Kaolack dañoo génn massivement parce que dañoo am yaakaar ci man ak Serigne Mboup loolu tax ñu ñëpp génn voté ba pare nag sànni ñu carte. d'accord mais mais. Euh, ñu ñu dem ci argument yi du boobu rek ñoom tamit nee nañ euh, ay bureau yoo xam ne ne fu ci mel ni coof yoo wax démb maa ngi koy gis ci jàkka ba ma pare sama ci jàkkaarloo euh, am ku dugg di wax ne. argument yi nekkul xaj rek dëgg la am argument nekkul ay xaj yi mais dañ ne bureau bu mel ni coof dañoo bëgg ñu annuler bureau de vote boobu parce que dañoo constaté que ne nit ñi dañoo voté ba 22 heures ma nekk bureau boobu noonu coof yoor certes voté nañ au delà de 18 mais dafa amoon arrêté sous préfectoral bi ñu jox autorisation. yor ngeen ko yor nañ ko kay. si coof yoor suñ candidat dañ fa am candidat suñ candidat c' est un juriste c' est un avocat moom lépp lu muy def da koy teg ci yoon. donc loolu tamit ay waxu naxaate la ay wax yu tegul ci fenn la bu dañoo voté au-delà de 18 heures parce que dañoo am autorisation. Mhm. beneen argument bi nee nañ euh, dafa am bureau de euh, PV yoo xam ne amul cachet SEDA waa léegi su PV su amul cachet SEDA ñun suñu fët la su ñàkk cachet SEDA day tax ñu annulé bureau vote de bureau de vote yi lu am solo kay ci PV yi mooy wane nañ ne ñii ñoo voté lii euh, ñii lañ voté. cachet SEDA kay su ci amu sax fekkee noonu lu ñuy wax fekkee dëgg la sax après da dem jël cachet rek def ci cachet ñu bëgg annuler ay vote jàmm ndax amul cachet ñu wax feneen ne fu mel ni com bi dañoo jaawale jël ñoom luñ moom mhm. jox jox ñu ko ñun ñu jël ñu jël suñu suñu moomeel jox leen ko mhm. boobu an seen nit yi ñii ay wax ñu daanu ci sare la ñuy wax dafa mel ni ne ñoom nekkuñu nguur gi. mel na ni ñoom amuñu assez de professionnel yi xam ne ñoo ngi doon surveiller. mais lii wax ku nekkoon opposition la waroon doon. waaw exactement loolu laa bëggoon a wax bu njëkk contestation yi ak euh, da ngeen a sàcc ak yu mel noonu opposition bi ñoo ko doon wax léegi bu ñu demee ba ñi nga xam ne te ñoo yore nguur di ko wax te ñoom ñu organiser élection yi. wax ku daanu ci sareet la rek wax koo xam ne ne ragal nañu dàq ko loolu rek la ak wax koo xam ne ne ku gorodi la wax koo xam ne ku gëm di yàlla la rek looloo tax ñu def lii xam nga waaj dafa yor nee naa la direction générale boo xam ne ne moo gën fukki ministère mais malgré tout un jeune boo xam ne ne il n'a presque pas les moyens daal di koy gagné gagné bu rafet nag malgré sàcc yu ñu ci def yépp nag le nee nañ 1700 voix lañ leen rawee te ëpp na ko sax nag ñun on a que lu ñu leen rawee ëpp na 1700 voix looloo tax sax ñu nit ñu dugal dugal recours dugal recours pour sàmm baat askan wi nga xam ne dañu ko dénk parce que duñ nangu baat yi ñuy dénk benn da ciy sànku moo tax ñu nit ñu dugal recours ne leen commune yi ngeen xa commune yi ngeen wax ne da ko gagné da ngeen ko da ngeen gonfler résultat yi. mu nekk lu garaaw nag. mais mais moom dañuy dégg euh, Pape Demba bi tey mooy wax mais Mahmoud Ndiaye Rahma dafa mel ni moom mbir yi daf cee noppi. waaw Mahmoud Ndiaye Rahma nag mënul wax parce que moom it sama mag sëriñ Mboup da ko duma duma yu métti ci commune bi plus de 20 mille voix rawee nag ko Pape demb bi tey mii nii nga xam ne moom doo ko dégg di. second couteau yi rek ngay dégg ñuy wax ñi nga xam ne ne pour man dañoo war a noppi ñoom dégg naa démb ñi ci émission benn émission télévision ñuy génn di wax seen parcours di wax seen CV loolu ban njëriñ laam fekkee ne nañ ne loolu yëpp ñoo ko def ci kaw la te bu tànn jotee gars yi teg la ne le amuñ sax fit dama seen liste bopp ñu nekk ñoo xam ne amuñ benn engagement amuñ benn mérite ndax nekk lu du daw ci làqutu ci ginnaaw nit ñi ma ne nañ noppi monsieur Baba Ndiaye yow laay waxal je t'attaque personnellement malgré sama grand frère nga doon naa doon xaar leneen ci yow man foogoo naa ne sa fula ak sa fayda dina la permettre suñu la bëgguñu la tànnuñu la nga ñëw taxawal sa bopp. mais ñu bari euh, benn zone jàppoon nañu ne benn Bokk Yaakaar day gagné commune Kaolack ak département bi yéen euh, yan argument ngeen teg Kaolack ba ba mën a convaincre askan bi. wax leen dëgg te nag askan bi dafa tuñu xam nañ ñi leen bëgg xam nañ ñu leen bëgg jëriñ ak ñu leen bëgg jëriñoo ñoo xam ne ñun dañoo bëgg jëriñ Kaolack nag. mu nekk loo xam ne ne vote bii nii lu ma ci gën a xam mooy population Kaolack dañoo gën a wone seen maturité. Mm-hmm. lu ñu doon wax Kaolack Kaolack de bëgguñu dara parti au pouvoir lañ lañ àndal dans toutes les conditions à chaque fois ci ñoom la ñu àndal Kaolack gëmuñu lu dul xaalis bii pa xam nga lu fi xew Kaolack. Mm-hmm. ay candidats yu joxe seen xaalis. xaalis boobu ñu jox ñu financé ñu ko sax nag ñun ñu gañe leen man gis naa jeune boo xam ne ne ci candidat yi jox nañ ko 2 millions mu ñëw jox ko sëriñ boobu ne ko li maa la ko dimbalee sa campagne. Mm-hmm. donc kat population Kaolack vote bii nii dañoo wane maturité wane ne dañoo mët sëkk luñ doon sëriñ mu ne leen manipuler xaalis mu ne leen manipule dañoo xam ne seen kàddu yi ñoom ñoo ko moomu seen bopp. ku ci sëriñ bu ci dugg nag. d'accord léegi léegi léegi diggante bii. nga war nañ la respect mais. Ah. après bu ñu jógee ci mbañ gàncax gi dem nañ euh, voter mais est-ce que woon ngeen ay soutien ci kilifa yi. kilifa diine yëpp ñun lañu àndaloon dañuy doon wan ne nii wane nii ci biti ne mais ñëpp. ñu ñu ñun lañu àndaloon dama ne lu ñu gagné Kaolack lii musta am ci Kaolack man rek j'ai eu plus de quinze mille voix de plus ci euh, sur mon challenger euh, ci commune bi looloo tax seen wax ju bëri ji yëpp mënuñu fexe ba dab ñu maa ngi dégg ñu def intox di wax ne sur les quatorze communes que compor que comporte le de Kaolack ñoom ñoo gagné douze yi donc ñoom ñoo gagné mel ni ne mbir mi. ak ku gagné nombre de commune alors que commune yi bokkuñu poids électoral. Mm-hmm. te encore loolu ay kàcc la gañewu ñu douze communes yi communes yu bëri dañ leen fa yeneen communes yëpp dañ leen fa dóor ji ci ëpp communes yi ñu gañe ay communes ndaw ndawaan ni la mais amul poids électoral boo xam ne mën na tax ñu euh, dabu gab bi nga xam ne ne am nañ ko ci suñu déggante ak ñoom ci euh, scrutin bi. mais est-ce que du ñoom dañ leen euh, xawoon a minimiser début bi. mais loolu moo am dañoo sous-estimé woon moo tax njort naa ne loolu tax sañu def recours bi pour yéexal passation bi ñàkkul. nu ñu waroon defaree seen bagage pour jox ñu ko jox su ñu seen lenge yi defuñu ko moo tax ñuy yéexal di def ay recours pour yéexal euh, di def pression sur la justice pour yéexal passation yi mais nañ xam ne ne ça ne va pas passer. waaw mais yow ni ma la déggee benn zone dafa mel ni da nga bëgg a def euh, li nga xamante ni tey mooy euh, da nga bëgg def règlement de compte. non bëgguma def règlement de compte loin de loin loin de moi cette idée. jeune du ma def chasse sociale parce que tamit euh, Kaolack ñoom ñëpp sama njaboot tey mu neex leen mu naqadi leen ñoom ñoo ñoom maay seen kilifa tey jii ne ci Kaolack parce que man may président conseil départemental bi donc damay ñu su ma ñëwee incha allahu rabbi dañuy yéexal jëll bi rek mais ba su ma jotee ci kële conseil départemental bi incha allahu rabbi duñ def lu dul rek indi jàmm ci Kaolack duñ def règlement de compte duñ def chasse euh, chasse euh, nu ñu ko waxee en tout cas. waaw chasse aux sorciers duñ ko def incha allahu rabbi. d' accord léegi diggante bii ñu toog. recours beeg yooyu. Mm-hmm. Euh, conseil départemental bi fonctionné wul. lan mooy conséquences yi. waaw mais gën a yokk jafe-jafe kaw la koy rek parce que conseil départemental lu ci aajo dafa bëri. hôpital bi ci la nekk stade bi ci la nekk collectivité locale yëpp a war a bañ a fonctionné wala boog yëpp mën na am vacance ba mu des suñ conseil départemental bu Kaolack bi ndax Kaolack ndànk dañoo sonn. Kaolack ndangaan dañoo nekk ci jax euh, ci jafe-jafe donc suñ conseil départemental bi dafa war a fonctionner xam nga le recours n'est pas suspensif loolu la koy wan rek ne dañoo bind ci code électoral que ne première réunion conseil départemental dafa war a intervenir 15 jours après proclamation résultat donc loolu mooy wane ne le recours n'est pas suspensif waxuñu recours ou pas recours dañ ne carrément ci code bi que 15 jours après. Euh, proclamation résultat la première réunion conseil départemental dafa war a intervenir donc foofu nag ma interpeller le préfet di ko wax ne responsabilité am la lay engagé suñu bañee samp parce que nag moom dafay nekk pour appliquer loi warul làqatu ginnaaw benn ordinance pour bañ ko appliquer parce que nag dafa am en droit lu ñuy wax pyramide des normes maanaam texte yi nga xam ne ne moom la ñu war a appliquer dañu sutante constitution su nekkee ci kaw loi moo ci tegu après nag juge euh, jugement yeeg euh, acte yi jógee ci juridiction yi doog cee. Euh, doog a ñëw donc entre une ordonnance et une loi c' la loi qu'il doit appliquer monsieur le préfet maa ngi lay wax nga jël ses responsabilités te mbir mi duñ ko bàyyi noonu parce que nag yabaate yi dafa war a jeex. waaw léegi léegi benn zone li ma si jaaxal tamit mooy. lan moo tax ñu installé sëriñ boobu te yow installé wuñ la. te ngeen bokkoon benn coalition. waaw loolu laa lay wax nekk loolu mooy. beneen incohérence parce que dañ ne mun njaay ma deful contestation wala boog recours bu ñu def du am benn incidence ci euh, ci ngañaay sëriñ boobu parce que sëriñ boobu vingt mille voix la rawee waa ji xam nañ moom mënuñu muus màcc ba euh, trouvé gab boobu noonu. non mais mais fa ñuy wax Fara Khadja nekk amoon na euh, vote communal. mais loolu moo la concret am na vote communal te su fekkee yooyu noonu dañ ko nar a annulé ça veut que le nombre de conseil yu sëriñ yi mbubb yi mooy. loolu mooy lu muy tekki rek mooy le juge sincèrement il n'a pas dit ici le droit beneen may wax gis nga ci euh, code électoral bi dañoo wax ne à chaque fois la cour d'appel la wax il n'a jamais été dit le président de la cour d'appel maanaam juge cour d'appel fii mënu toog ci bureau rek jël benn décision lép lu muy def décision c'est en assemblée générale la ko war a jëlee ci waa matière électorale xam nañ bu baax lu ñuy wax maanaam en matière électorale c'est la cour qui a des compétences et pas le président de la de de, de la de la cour. moo tax encore une fois monsieur Ousmane Kane avec tout le respect que je vous dois maa ngi lay ñaan nga dellu ginnaaw ci ordinance bii nga jël. ñu defee kon en 2014 ni ko sa homologue defee woon en 2014 am na say naataango yoo xam ne ne dañoo jëloon ordinance interdire ay euh, ay installation après ils se sont rendu compte que def nañu erreur. ñu xam ne nit day jum te nit ci lu muy liggéey rek lay juum ñu dellu ci ginnaaw ñoo ngi lay ñaan nga am même attitude juumte bu mag mag la moom ci boppam xam ne ne dafa juum moom ci boppam xam ne dafa juum tous les grands spécialistes du droit xam nañ ne en matière électorale le recours n'est pas suspensif may wax tamit ne ñu may déglu ñëpp ñu xam ne ñun bañ ñu yoon def liggéeyam yoon na def liggéeyam parce que sax ñun loolu moo ñu arrangé parce que ñun su yoon defee liggéeyam incha allah dina feeñ da xam ne ne gars yi dañu tojowoon ay voix yoo xam ne ne dañ ko randaloon te incha allah dina génn suñu nombre de conseillers dina yokk ñoom seen conseil wàññeeku waaye yoon na def liggéeyam waaye bu mu tere administration def liggéeyam yoon na liggéey mais bu mu tere keneen def liggéeyam le judiciaire doit être séparé de euh, l'administratif loolu moo jaadu ñuy wax ne ne dañu bëgguma yoon def liggéeyam dama bëgg yoon def liggéeyam mais bu mu tere kenn def keneen def yoon def liggéeyam terewuñu samp ma nañ ma samp ba pare yoon continuer man nag lii lu mu ci njoxtu mooy dañoo bëgg def forcing bëgg def hold up xam na ne suñ ma sampee dootul yomb. comment ah mais nit ki soo ko sampee ba pare xanaa loo jubadi jubadi jubadi da jëlee ko fa du yomb de su fekkee ne tegoo ko tegoo ay argument de droit. yu wóor ak ay tegoo ko fen loolu la tax ñu bañ ñu samp ñu parce que dañoo narul njub mais su doon ñëw wóolu nañ seen bopp que ne ne euh, affaire dina leen jox dëgg nañ def lu yoon wax yoon dafa ne su recours amee. candidat bi ñu wax ne mooy gagné dañ koy samp suñu demee nag ba ci recours bi fekkee recours bi da ko favorable ñu bàyyi ko mu liggéey su ko recours bi défavorable su ko recours bi défavorable ñu simpi ko loolu la yoon wax léegi euh, président euh, cour d'appel Kaolack moom euh, yan argument la leen tegal yéen nee na nee na lu muy bañ mooy recours bi lu muy bañ mooy après recours bi suñ ma samp suñ ma sampee recours bi défavorable ma après ñu ñëw di ma simpiwaat neen balaa caag laa ñu xaar ba yoon wax lu muy wax ma ne ko moom mbir mi kenn laaju ko ci xalaat dañ ko mu appliquer la loi day xool lu yoon wax mu def ko yoon nag moo wax ne le recours n'est pas suspensif maanaam su coo euh, su contestation amee ci wàllum élection dañ samp mbër mi nga xam ne ne moom la résultat yi joxe léegi nag ñoom ñu saytu suñ saytoo gis ne mbër mi moom la ñu waroon samp te samp nañ ko ñu bàyyi ko mu liggéey fekkee ne nag dañoo defoon erreur ñu daal di koy sempi. léegi say avocat ban taxawaay sama avocat taxawaay bu mat sëkk la am ci njëkk mooy ordonnance bi nga xam ne ne dañoo gis ne dafa war a génn ci ordonnancement juridique bi maanaam dañ ko war a supprimer dinañ ko attaquer incha allah pour ñu supprimer ko beneen bi mooy incha allah audience bi ñoo ngi préparé pour joxe suñu argument yi nga xam ne am nañ ko par rapport recours bu fantaisiste bu benn waa benn bokk yaakaar ñun taxawaay bu ñu ci amoon tamit mooy cette bataille médiatique la dem ci nit ñi yëgal leen lu xew ñoo ngi koy def ñoo ngi dem ci plateau yi wax ko tey jii nii. ñëpp xam nañ ne Kaolack lu fa xew jaadul yoon dañoo bëggoon jaay doole un jeune boo xam ne dafa gëm boppam dañoo bëggoon jaay doole un jeune boo xam ne dafa bëgg gëm askan Kaolack ndax gëm askan Kaolack ak gëm boppam moo moo tax présente am fit présenté list contre benn Benno Bokk Yaakaar su bëggoon du yomb bëgg lu nooy day dem ànd ak nguur ga. waaw mais euh, Ahmed euh, Youssouf Bengelloune yow élection locale yi. Mm. Euh, da nga bàyyi ba élection locale yi ñëw rek nga dem ci coalition ànd nawle wala bien avant les élections un an avant. yaa ngi doon def politique ci Kaolack. maa ngi commencé politique avant deux mille 2012 président Macky Sall bu mu koy jàppale nekkagul faloogul 2012 bokk naa ci ñu ko fal. Kaolack Kaolack mais après dama créé son mouvement ndax nag lu ma gisoon APR Kaolack doyuma ma. lu tax APR fépp comme fépp ni ñu ko xamee rek dafa nekk parti boo xam ne ne des naa ubbeeku. te pourtant dafa bëri leader foofu. waaw dafa bëri leader bëri na leader des na nekk ma lu ma jàngoon lu ma yaakaaroon ci politique gisuma ko ci APR Kaolack mooy dama foog ne su ma fi ñëwee dinañ ma jàngal jànguma fa dara dama dem réunion gis ay nit di dóorante ay kurpañ di xeex ma ne lii la ñu dem lii mooy politique man man politique bi moom taxumaa jóg parce que dama dund ba am 33 ans jamono yi 33 ans laa amoon xeexuma may ñëw ñëw ci politique di xeex kon boo fekkee lii mooy politique man politique bi man taxumaa jóg ci laa créé sama mouvement. tuddee ko nag nekk ci depuis 2012 2014 jot élection locale jot ma dem xool kan laa munoon ànd ci Kaolack ndàngaan kan la ma programme gën a doy ma ànd ak moom yàlla def boobu bu ñu demee en tour ñu jël deuxième cette fois ci ma ne woon candidat la déposé sama caution xanaa kon man gëm naa sama bopp. mais est-ce que tenté woon nga pour nekk candidat benn bokk yaakaar. jéem ma ko nag sax nag parce que man bokk yaakaar je soutiens le président de benn bokk yaakaar je suis de la mouvance présidentielle mais bokkuma benn bokk yaakaar. parce que dama gis nañu doxale gis fu leen population Kaolack te parce que nag c'est une coalition boo xam ne qui a été vomi par euh, par la population de Kaolack. Benno Benno ah mais nooy expliquer seen euh, coalition bu rëy boobu noonu ak ñu ci nekk ponk ci nekk yëpp ñu ñu ñu dóor leen dóor yu métti yi nii. léegi ni nga waajee élection yi. waaj ku nekk ci terrain bi dem waxtaan askan wi yàgg leen jàppale nag amul domaine booy wax ci Kaolack nangaan ci lu baax def duñu suñu loxo dugg ci ñun waa Kaolack Nouvelle Vision. ñu lobe leen démb tey moo tax ñu bëgg fay ko ñuy fay ko tey. tey na askan wi ñu lebaleen démb ñu fay tey Pape Demba bi tey nekkoon ci ay nalaw ñëw ne dañu koy xañ ak ñu muy àndal ñoo xam ne ne ay euh, soo gisee ñu ñu yor euh, xeex Pape Demba bi ñoo xam ne ne ay parti yoo xam ne lañ ay xañ nañ ci boîte allumette ak ñoo xam ne ne amuñu benn fit amuñu benn courage nekkuñu lu dul di daw ci ginnaawam pour ëllëg kon fu yaakaar na dinañ continuer nekk ci conseil départemental di ko gérer par intérim ñoo ñoo ko wër ay ñoo xam ne amuñu benn engagement ñooñu ñëw tey nee na suñu ndam lu rafet gi dinañ ko xajama non ça ne va pas passer. d'accord mais euh, Youssouf Ahmed euh, Bengelloune yow ci wàllum politique. Mm. am na ñu bari ñu doon tudd ñu doon tudd Kaolack. Mm-hmm. ñoo xamante ni tey euh, ay leader politique lañ euh, nga ñëw gagné leen. Mm-hmm. ci élection yi. loolu lan lay joxe après. waaw loolu mooy wane rek ne que Kaolack besoin de changement ñi ñuy fi tudd nii rek na ñëpp nag ña ngay wax noonu ci Kaolack yàlla xam ne amul ku ñu ci ëpp baas mais man dama préféré woon liggéey ba nit ñi xam ma mais préfère moo nekk ci rajo di mel-mel ba nit ñi xam ma te le terrain m'a donné raison gis nga sëriñ Mboup ku ñëpp xam ne borom xel la su doonoon je suis n'importe qui du ma tàllal loxo ba may samp ci département bi sëriñ daw ma dem wuti ko moo dem ñëw wuti si ma nu ma ñëwee am na même Baba Ndiaye mi il a essayé de travailler avec Serigne Mboup sottiwut parce que Serigne dafa xam sama taxawaay xam lu ma ki ma doon xam euh, sama sama sama sama dayo moo tax mu ñëw proposé ma ci département yàlla dimbali ñu rusloowuñu ko nag benn yoon. Mmh. waaw mais mais ñun ñoo woon ci presse bi mais euh, sa tour mmh. tolloon na moment yoo xam ne desoon naa fës ci wàllum politique Kaolack. waaw mooy euh, loolu lu ko waral mooy comme nu mu koy faral di expliquer rek ay deformation professionnelle da xam nga je suis un fonctionnaire tàmmul di fës. sama déformation professionnelle boobu moo taxoon préféré moom di communiquer mais dama nekkoon ci base bi nag waaw waaw fépp la am sama mouvement fépp la am ci kaw la quartier bépp am na fa cellule commune yëpp am naa fa ñu ma fa nekkal ma nekk ci terrain bi di liggéey donc déformation professionnelle moo taxoon nekk moom di communiqué mais communiqué ça ne veut pas dire que ne ne liggéeyu ma woon. mais mais mais du coalition euh, ànd nawle moo la moo la yóbbu fii. ànd coalition ànd nawle am na lu ci def ndax tey jii nii su ma nekkee. Euh, président conseil départemental ñoom ñëpp ñu ànd mais tamit dama indi dama indi ñu indi coalition loolu mooy njëriñ ji da ngay indi sa moroom indi ngeen booloo coalition ànd nawal tey ñoo ma teg ci présidence conseil départemental waaye nag dañoo fekkoon ma liggéey ba pare ñu ji ñu jël la ma indi ak ñoom lu ñu am ñu boole ko moo indi lii indi yóbbu sëriñ boobu ci commune bi yóbbu ma ci département bi moo tax nag maa ngi remercier coalition ànd nawale ànd liggéey yëpp di leen seen taxawaay jàppale bi ñu ma jàppale waaye ak ADK mi nga xam ne nag président sëriñ bu moo ko jiite mooy mouvement personnel am euh, bi nga xam ne moom la teg ADK bu ñu ma choisir ñoom wax dëgg yàlla tamit ñu nangu nangu choix boobu noonu. d'accord mais mais euh, lu tax tey sànq sa biir wax ne nga politique bi nga def politique sociale la dem euh, gisanteeg nit ñi même sëriñ boobu aussi du koo xam ne mën nañ koo tuddee homme politique. comme ni mm-hmm. ñu nekk ci yeneen parti mm-hmm. lan moo tax ngeen ñëw tey. Mm-hmm. déblu ne tey ñoo xam ne. Euh, dañu nekk ci ay ay acteurs politiques lañ Kaolack ñoom ñoo pare ci euh, benn xeetu politique bi wala. waaw loolu moom kenn waxtu ko xam nga comme na nga ko gisee partout dans le monde rawatina fii ci Sénégal politiciens classiques yi politiciens professionnels yi moom gars yi wan nañ leen ginnaaw dañoo bëgg changement ñu ñu bëgg mooy ñoo xam ne ne dañoo jàpp ci leneen ba pare ñëw di politique maanaam jëluñu politique bi def ko liggéey ñoo xam ne ne su dul politique du existé wuñu non non gars yi bëgg ñoo xam ne ne. dañoo ñëw ci politique ngir indi mais pas ñëw ci politique ngir jël loolu la wane fii xam nga sëriñ boobu moom doonoon na ku mu doon ba pare avant politique bi man mii di Ahmed Youssouf Bengelloune yàlla nga may dimbali ci sama liggéey soxlawu ma dara politique politique taxul ma dawal oto politique taxul ma am kër politique taxul ma dem màkk au contraire sax lépp lu tey mën naa gis naa ne tey jii nii su ma eggul fenn fi sax politique a tax lépp lu ma am def ko def ci politique yi ma jox la exemple ren. ci campagne bi ni ñu ko defoon 2014 noonu la ñu ma ko defaatee samay doom dañ leen dàq école parce que lépp lu ma leen waroon fayal dama jël ko dem dama ko jël campagne ko. wifi sax aw koon sama kër sama kër dañu coupé woon sax wifi bi pour wane na ñun engagement bu ñu amoon. d'accord léegi euh, Bengelone euh, organiser ngeen démb ab marche. Mhm. lan moo waral euh, marche boobu noonu. marche bi lu taxoon ñu organiser ko mooy pour wan ñi nga xam ne ne. ñooy acteurs yi ñu ñu war a installé que ne jeunesse Kaolack femme Kaolack taxaw nañ ak góor ñi ñoom ñëpp taxaw nañ nañ ma installé c'était pour dire au préfet que ñu installé ñu parce que yoon moo ko jox obligation mu installé ñu mais remercier nag autorité administrative yi nag parce que nag mënoon nañ bañ a autoriser marche bi mais autorisé nañ ko waaye dañoo xam ne ne suñ ko autorisé tamit day métti waaye dinañ marche parce que ay jeunes yu ak ay jigéen yu déterminé nga ciy gis gis ngeen image plus de 3000 personnes étaient la là-bas 3000 personnes yoo xam ne amoo kenn koo ci jox 1000 francs ñu fa ñëw foofu noonu du kenn ku ñu jox benn dërëm ñun duñ politique noonu ñoom ñëpp ñëw parce que dañoo am engagement donc marché bi dañ ko organiser pour lancer un message lancer un message au préfet nekko mu jël responsabilité am c'est pas parce que il y a eu une ordonnance que samp comme nu mu ko waxee à Saint-Louis en 2014 le préfet l'actuel gouverneur Alioune Badara Samb dañ ko joxoon ordonnance ne bul samp Mali euh, Mansour Faye mu ne il a déchiré l'ordonnance du pas déchiré c'est trop dire en tout cas il a il a il a euh, ne du appliquer ordonnance bi parce que le juge amul pouvoir ne ko bul installé wala installé mm-hmm. ci wàllum élection mu daal di ne da installé Mansour Faye après juge bi daal dellu ginnaaw daal di koy daal di annuler ordonnance am dafa waroon am attitude boobu noonu tey je le tiens responsable waa préfet Kaolack Ahmed Tidiane Thiaw je cite son no parce que nag dafa waroon jël responsabilité historique am samp ma comme na ko yoon waxee commencé won na ko nag il avait bien débuté ba ñu def séance de travail mu ñëw ne ko man sa rakk la maa ngi lay dénk sama bopp ci liggéey bii nii ma ne ko nag recours bi ñu wàllum recours bi loo ci euh, ñu waxtaan ba egg ci recours bi mu ne ma recours bi terew maa def sama liggéey man républicain la yoon moo ma jox obligation ma samp la dama lay samp ñaari mbir moo mën a nekk nag recours bi antuwul ma bàyyi la nga liggéey recours bi nag su fekkee ne dafa antu ah ku am pouvoir installation am na pouvoir des installations lii la ma préfet bi wax. mais d'accord mais bien sûr loolu amul lu may d'accord yoon ko wax tey jii nii suñ dem sëñ bi dañ maa war a samp su demee bañ ne gis na ne waru ma faa nekk ñu dindi ma mais samp gi moom. mais mais yow sa problème du problème recours bi mais problème installation. problème installation du problème recours bi non tiitu ma ci ragalu ma ci te euh, wax dëgg yàlla parce que xam naa ne le droit est avec nous la volonté populaire est avec nous l'exprima euh, l'expression de la volonté populaire tamit wane na ko moo tax tiitu ma ci. man amu problème ak recours bi. léegi marche yi ngeen organisé nii démb ci euh, vendredi bi Kaolack. Mm-hmm. ñu gis nit ñi génn nañ léegi dangeen ngeen yem ci marche boobu wala da ngeen bëgg a def ay série de manifestations. ñaanutuñu yàlla marche ci parce que xam nañ ne dinañu préfet dinañu dégg déglu nañ nit ñi dégg nañ nit ñi ñaa yaakaar nañ ne fii la yam parce que quand nag jàmm moo gën lépp euh, waaye nag ñoo ngi leen wax ne duñu bàyyi xeex bi tant que installé wu ñu dañu war a installé xam nga lu ñu war ñu installé contentieux bi mën na bañ yem ci cour cour d'appel rek. parce que tey jii nii suñ génnee résultat yi waa Benno mën nañ euh, bañ a kontaan ci résultat yi. daa di daa dem cour cour suprême comme ma ne mën naa ci bañ a kontaan daa dem cour suprême pendant ça tout ce temps là dañuy bàyyi conseil départemental bañ a fonctionner. ma joxoon na exemple rek ci euh, cas Podor Aïssata Sall euh, résultat provisoire da ko joxoon ne dafa gagné Racine si daal def appel après cour d'appel daal ne Racine si moo gagné Aïssata Sall daal def cour suprême. daa dem cour suprême cour suprême daan naan Aïssata Tall daa da koy delloo ndam li gis nga loolu imagine toi ñaata weer la jël suñu installé woon suñu installé wuloon euh, Aïssata Tall kon Podor day nekk en vacance ñun vacance boobu nag ñun at Kaolack attanu ko Kaolack tout est urgent Kaolack dama ne dañu war a liggéey vingt cinq heures sur vingt quatre. léegi lan moo tax nga ne huit jours sur sept sax nga ne bëggatu dama ne dama xam ne ne gars yi dinañ ñu déglu. su dee mais suñu réagirut euh, après nag on va évaluer ñu xool lu ñuy lu ñuy def soo laajee manifestation ñu def nag manifestation bu gën a rëy bii nii leen daal laa leen di wax ne gis nga nit ñu génn dem ñëpp luyee ñu ci kenn jënd ñu ci kenn ñu ñu am engagement lañ seen message leer na le message bu ñu lancé mooy la population de Kaolack Ndangan a choisi Ahmed Youssouf Bengelloune devant un multimilliardaire boo xam ne ne dafa noonu ñëw di jënd di jënd carte ñi malgré tout ñu choisir ñoom nag nee nañ ndaw ñi lañ tànn kenn du jël seen vote boobu noonu di ko salfaañe su doonoon sax ñoom dañoo am ay carte yu ñu leen yu ñu leen comptéwul ñu ne waaw mais ñoom lu ñu bëgg fu ñu bëgg a jaar pour gagner mooy éliminer ay voix ay ay kaw la ko mel na ne ñooñu ñooñu ay kaw la ko. d'accord léegi euh, Bengelloune dafa am benn cas sànq boo wax nii muy euh, dafa am candidat yoo xam ne même du kaw la kese. fu bari ci Sénégal gisoon nañ candidat yoo xam ne ñii ay milliardaires lañ euh, ñii génn nañ xaalis bu baree bari te te te te voté luñ leen kaawu Kaolack euh, bi tey ma nga fa euh, Rahma ma nga fa waaye gis nañ ko feneen ak feneen boo xoolee ci Dakar boo demoon tey Golf Sud Lat Diop ma ngi woon foofu nga dem Medina Cheikh Tidiane ba ma ngi woon foofu boo demee tey Jëppal Sadir Bey ma nga foon ñu gis na daal. am na si ñoo xam ne tey génn nañ xaalis am nañ benn taxawaay bi dénk nañ leen ay ay direction yu mag a mag a mag te teewul dañoo ñàkk yow ban analyse nga ngay def foofu. waaw analyse analyse nag mënuñu koo boole lu ci kaw rek lu ci Dakar Dakar nag d'habitude dafa nekk ville boo xam ne opposition moo ko moom mais contrairement ak Kaolack Kaolack moom en général parti au pouvoir ak doon gagné moo tax suñu victoire historique. Hmm. moo tax suñu victoire historique tey ñu bëgg koo xañamal danaa ñëw sa réponse waaw. Euh, Kaolack dafa wane carrément que ne xaalis wa dañoo war a maturité politique mais a Dakar moom ça a toujours été le cas. waaw mais Kaolack est-ce que te ñoom ñoom est-ce que Kaolack. du ñoom. Mhm. Euh, état central. Mhm. Euh, est-ce que du état central lañ mere kon. xaw ma ndax état central lañ mën parce que état central nekk nekkul état central moo fi nekkoon candidat mais daa xam naa la bonne bokk yaakaar moom est vomi par la population de Kaolack. en tout cas da xam naa ne moom les deux candidats de Benno Bokk Yaakaar ont été vomis par les populations de Kaolack. exactement léegi moom la ñu wan ginnaaw wala candidat yi fa Benno Bokk Yaakaar samp ñooñu la Kaolack amul amul amul euh, amul euh, yaakaar si ñoom. ñëpp la ñu ginnaaw candidats yi ils su ils pas su polariser ñi yeneen leaders yi nekk Benno Bokk Yaakaar foofu man jàngat boobu laa ci am waaye tamit Benno Bokk Yaakaar ci boppam la waa Kaolack àndalut. ak candidat yi. kon yow jàpp nga ne ku ñu fa mënoon teg mu ñàkk. ku ñu fa mënoon teg jàkkaarloog ñun dañ lay duma ndax nag waa kaw Kaolack ànd nawle ànd liggéey lañ wax. mais est-ce que confiance bi yéen amoon ngeen ko. mais suñ ko amuloon danañ jël suñu million def ko euh, euh, dépenser suñu alal def ko ci man nee naa la aw ma dara waaye lépp lu ma am sama mbokk yi lépp lu ñu am jël nañ ko daal déposé ko man rek dama doon dem candidat laa woon déposé kan mooy dem ci xare di def autant ak politique mu méttee lu mu laaj ci moyen nga def ko ci te yaakaaroon gañe man depuis le dama xam damay gañe man rek sax su ma demoon sama bopp dama leen di gañe mais dama xam ne mbooloo mooy doole ñu ànd ma gis sama mag Serigne boobu ñu ànd daal di nekk benn parce que nag Serigne mënul ne day defar Kaolack ma ne ma ne damay defar Kaolack ku nekk di ber sa langue boole ci sama ànd ak moom c'était une demande sociale fépp fu ma dem dañ ma àndal ak Serigne àndal ak Serigne Serigne tamit fépp fu mu dem ñu ne ko àndal ak benn jeune moom ci boppam mu am mag mu am mët bu ma sëkk nag mu nekk koo xam ne kilifa la mu ne ma yow sama rakk maa ñëw jël si la. mais mais est ce que yaakaar boobu kaw la ko waay am est ce que duñ am déception. incha allah rabi de ñun ñun de dinañ def tout ba duñ am déception mooy nan dinañ fexe seen soxla ñu taxawee ci en fonction des compétences yu ñu dénk en fonction des moyens yu ñu am en tout cas lu mu yaakaar boobu munul tas ndax lan koo xam ne ne dafa doon raam di la bokk bés bu amee tànk du fi bàyyi. ñun lépp lu ñu am dañ ko defal Kaolack ndongo lépp lu ñu am yóbbu nañ ko Kaolack tey suñu demee bañ dénk ñu Kaolack dinañ def tout loo xam ne ne. Ah, euh, dinañ def lépp pour seen yaakaar boobu na bañ a tas mais benn Bengelloune tey est-ce que yow ak Serigne mm-hmm. am ngeen jot ak seen liggéey est-ce que am ngeen jotu toog ci mairie bi ak ci conseil départemental bi bien sûr bien sûr mais ñun euh, amuñu leen lu dul Kaolack suñu liggéey lépp affaire organisation la affaire bi nekkul euh, lu ñuy personnaliser c'est une institution c'est une équipe ñun muy ko équipe municipale bi équipe euh, départementale bu ñu posé Kaolack ku képp ci ñun ci euh, su ne maire bi ñu ko composé ñëpp mënoon nañ nekk meex soo ñëwee ci département ñu ko composé woon ñëpp mun nañ nekk président conseil départemental parce que ay ressources humaines yu am solo fa nekk ba tax na ne kenn ku firi mbooloo la mbooloo buy firi kenn la incha allahu rabbi y aura pas de problème à ce niveau là kenn ku uteewoon ak keneen morom mën na ko remplacer. seen xel na dal. mais yow am ngeen euh, euh, Kaolack tey dëkk la boo xam ne ñu bari nee nañ euh, dëkk la boo xam ne naqariwut a defar. Mm-hmm. est-ce que yéen jàpp ngeen ne fii at. Mm-hmm. satisfaction dina am. ak bu dee nan ngeen koy defee. mais incha allahu rabi si on a aucun blocage te blocage du am nit ñi dinañ gis changement ci visage Kaolack ndàngaan ndax nag ñun muy man di sëriñ xam nga lan la ñuy wax. élection yii di ñëw yii nag wees nax wees na yii moom gagné nañ ko ba pare gars yi ñooy jéem guddal jël rek mais euh, bañ nangu euh, mu incha allah daan nañ leen mais élection yii di ñëw fas yéene ñoo campagne suñu bilan moo ñu campagne donc te bilan bi nag léegi ngay commencé di ci liggéey incha allah. léegi wax nañu tuuti si seen programme. waaw programme bi su ci lu ci mel ni ci département bi dañoo am benn programme boo xam ñu ngi tuddee woon naatal département Kaolack Ndangaan bi mooy fexe Kaolack Ndangaan. am un développement durable à travers une résilience écologique une prospérité économique mais également un épanouissement social maanaam dañoo bëgg Kaolack nangaan am yokkute boo xam ne day sax dakk loolu mooy développement durable jaareele ko ci alam bu mucc ayib ci koom-koom bu naat mais tamit ci nekkin askan bu ànd ak tawféex moo tax suñu programme yi ñett axe la muy bi ci njëkk faire de Kaolack une ville écologiquement résiliente maanaam fexe faire département Kaolack mu nekk dëkk boo xam ne ne alam bi day mucc ayib ñett ñaareel bi mu nekk dëkk boo xam ne ne day am koom-koom bu naat ñetteel bu mu nekk dëkk boo xam ne ne nekkin askan wi day tew tawféex loolu moo ne woon suñu programme programme bi nag euh, li mu lay wax noonu bu ci nekk axe yi ni bu ci nekk am na ay action yoo xam ne des actions phares yoo xam ne dañ ko fas yéene def pour atteindre ko fu ci mel ni faire de Kaolack une ville éco euh, écologiquement résiliente maanaam fexe ba Kaolack nekk dëkk boo xam ne ne te am am euh, alam bu mucc ayib dañoo seet que ne Kaolack ni ñu koy bàkkee mu dëkk boo xam ne des naa set mhm. Kaolack dafa nekk dëkk boo xam ne dafa tàng te tàngoor boobu noonu ak salté boobu yëpp am nañ euh, am na solution tàngoor benn tàngoor yàlla la waaye soo béyee soo ji jiyee garab daf jëmbët bu am solo li ñuy wax reboisement mhm. mun na wàññi tàngoor bu baax a baax moo tax suñu programme dañ ne dès notre premier mandat danañ fexe ak Kaolack reboiser ci au minimum ci département bi 800000 arbres incha allahu rabbi dinañ fexe ba toujours tamit ci écologie bi dañoo gis ne Kaolack xorom si moo ngi nangu suuf si ba lu toll ni mille hectares suuf béykat yi mun mëntuñ ko jëfandikoo dañ ne suñ premier mandat dinañ fexe 27000 hectares yooyu noonu nuñ ko récupérer mais tamit ba lutter contre l'avancée euh, euh, langue salée bi bi am Kaolack. d'accord loolu mooy ci wàllum écologie bi. waaye tamit ci wàllum toujours écologie ci wàllum set ak setal bi dinañ créer bëgg nañ créer ay unité de transformation yoo xam ne des déchets des déchets solides ba xam ne dañ koy transformer en pavage loolu suñ ko defee non seulement dinañ am pavage pour pavé dëkk bi dinañ ndaw yi dinañ ci liggéey parce que mën na unité yi mën na jël plus de 5000 personnes mais également dina lutter contre poussière bi ak tamit moo xam ne ne day am njeexital ci wàllum santé santé publique loolu mooy ci àllum yaa ma laaj sama programme xaju fii ci euh, programme. donc programme bu riche nga gis ne. <laughs> programme bu riche la ñu amoon ci Kaolack mais est-ce que c'est réalisable. très réalisable on l'a chiffré programme yi c'est très réalisable ñun ñëw ñu ci Kaolack pour nax nit ñi li ñu wax nii yëpp ay action yoo xam ne na tey tey tey suba suñu joxoon département bi suñu joxoon caabi département bi ñu ñu mu commencé doxal moo tax ma ne waa Kaolack yéen ñëpp génn leen ñii seen jafe-jafe lañ bëgg parce que. programme bi am euh, ambitieux bi ñu leen yéene doxal ko ba ngeen adopté ko ñoom lañ moom lañ bëgg a xañ moo tax ñuy yéex a jël bi génn leen ngeen imposé ni ñu samp ñu parce que nag suñu programme bi dafa am solo lool. d'accord léegi yow euh, après élection locale yi législative yi mu ngi ñëw ba est-ce que jàpp nga wut si beneen taxawaay. waaw xam en tout cas lu may mën a wax ñun ay acteurs politiques lañ fas yéene tuñu am benn élection ba fi jaar te duñ ci am taxawaay naka lañ ciy taxawee nag su moment bi jotee dinañ ci wax. incha allahu pour l'instant combat politique ñu mënee mooy notre installation. installer le nouveau président du conseil départemental de Kaolack monsieur le préfet loolu la ñu wax. Mmh. su ñu installé ba pare nag ñu waxoolaa beneen combat bu ñuy mëne. mais daal lu leer mooy élection législative bi moom incha allah dañu ci am taxawaay. mais yow nee nga président Macky Sall ngay euh, ngay jàppale. sa mouvement bi Kaolack euh, nouvelle vision tey par exemple tey bu gisee ne am nga benn taxawaay Kaolack ba gagné conseil départemental bi élection bu ñëwoon tey mu woo la nga bokk ci liste benn bokk yaakaar lan mooy nekk sa taxawaay boobaa. dama ne foofu tollaguñ ci sëñ bi fu mu nekk ni fu ñu toll mooy ñu samp ñu suñu sampee ba pare rek ñu doog wax beneen combat. d' accord mbokk yéen a ngi déglu rajo réew mi FM seen émission pencum réew mi muy am euh, samedi bu jot bu 15 jotee jàpp 16h tey ñu dalal nag Ahmed benn euh, Bengelloune mi nga xam ne euh, moom mooy jiite conseil départemental bu Kaolack te ba léegi ni préfet installé gu ko démb ci ajuma ji ñoom ñu amaloon li nga xamante ni tey mooy ab marche mais Bengelloune est ce que dem ngeen. seeti kilifa yooyu maanaam bu ginnaaw bu ngeen demee ci wàllum yoon wàllum mm, jàmmoo tamit comme yéen bokk seen Kaolack. yan kilifa. kilifa diine yi nekk foofu. waaw ah, incha allah loolu tamit euh, lu ñuy def la en tant que président conseil départemental nouvellement élu semaine bii di ñëw danaa def tour xalif généraux yi nekk Kaolack yi ak yu nekk ci Sénégal bokk na tamit ci xeex bi pour euh, wax leen li xew Kaolack. ginnaaw bu mu leen ziyaare remercier leen ci ñaan gi ñu ñaan ndax élection yi quoi qu'on puisse dire xew na ci jàmm ak salaam bu xanaa kay ñeneen ñi ñoo dem ba ñàkk rek bëgg ñànk di wax ne dafa amoon ay incident mais benn incident mu ñoom élection yi xew na ci jàmm ak salaam te loolu suñ ko amee mooy ñaan gi ñu ñaan moo tax naa ñoom ñëpp remercier leen ci ñaan ñu ñaan ba élection yi am ci jàmm dénkalaat leen sama bopp waaye tamit wax leen forfaiture yu ñu gis Kaolack mooy ñàkk installé bu ñuy ñàkk installé te Sénégal nekk benn Sénégal on peut pas comprendre am ay dëkk yoo xam ne ne installé nañ nit ñi te nax dafa te recours am fa am dëkk yoo xam ne ne installé wu nit ñi te ñu ne euh, lu fa euh, lu mu am recours moo tax. yow dañ la bëgg a jaay doole nga jàpp. mais dañ ma bëgg a jaay doole mais il hier on a montré que ne la population dans sa globalité est avec nous lu ñu leen wan lii lu tuuti ci dañu leen bëgg a jaay doole xam nañ ne doole askan ngay ko yor. mais jàpp mais ne président Macky Sall loo xam dafa ne ci ginnaaw. je ne pense pas je ne pense pas. moom tamit maa ngi koy ñaan pour wan que pour wan askan bi question bi ñu bëri ñu ngi koy posé man gëm naa ne nekkoon nekkul ci ginnaaw mais pour wan askan wi ne loxoom newul ci newul ci lii nii lu muy def nii ànd euh, àndu ci na jox ordre ñu mu war a jox ordre pour ñu installer ñu parce que moom it mooy la clé de voûte des institutions nit ñi dëkk moo war a doxal dëkk bi kon président man Ahmed Suzbé Ndiour mi nga xam ne ne yàgg naa la jàppale lu nekk daj naa ko te awma benn poste ngir sa pour nga falu ak nga faluwaat man maa lay wax ne volonté quoi Kaolack bi nga xam ne exprimé nañ ko nga fexe nu ñu ko matérialiser nu mu gën a gaawee muy lan l' installation de leur nouveau président conseil départemental. d'accord lan ngay tàggoo. ay kàddu remerciement d' abord ay kàddu remerciement ñan laa njëkk remercier yéen la presse ndax démocratie Sénégal tey su avancé ba am yéen taxawaay yéen waa presse yéen presse bi dox ngeen ci jéego yu mat sëkk suñ demee ba sàcc élection yombatut. def ngeen ci mën lu jóge mën sëkk suñ demee ba sosal candidat pour nangu victoire mëntu nekk yéen joué ngeen ci rôle bu am bu am doole di remercier coalition bi nga xam ne nag avant ñoom sax damay remercier population Kaolack ndax nag ndam lii ma am seen ndam la ñoom ñoo génn voté ji ci biir population boobu noonu maa ngi remercier waa ànd nawle ànd liggéey yëpp coalition bi monsieur Serigne Boub mi nga xam ne moo ko teg sur sur place mu nga xam ne ne def na ci dooleem xelam jotam lépp remercier Serigne Boub nag mooy remercier mboolum leader bu nekk ci coalition ànd nawle ànd liggéey maa ngi remercier la conférence des leaders des structures yi composé coalition ànd nawle ànd liggéey su ma limee damay juum moo tax bëgguma euh, bëgguma lim di remercier waa Kaolack Nouvelle Vision sama mouvement jàppale nañ ñu yàgg nañ ci mbir mi mais mosuñoo xàddi amul kenn koo xam ne ànd naag moom ngir xaalis waroon mënoon nañ seet ne kii de du ñu jox xaalis kii de amul post waaye déedéet tey lañ gën a jàpp depuis 2012 bu ñu jàppee ba tey bàyyiwuñu di remercier tamit démb ñi ma gis ci marche bi population Kaolack yëpp génn maa ngi leen di remercier ñi ci marche bi ñu ko euh, ñu ko venir assister j'ai vu des gens de l'opposition mais noonu laa gisee des gens du pouvoir gis naa ñu waa APR yi ñi nga xam ne na waaw waaw monsieur Fadilou euh, Keita Pastef ñëw na Pa Jokel Gadiaga mi nga xam ne ne moo ngi ci yeewi ñëw na gis naa ci euh, son fils euh, Gadiaga mi nga xam ne Y'en a ñëw na activiste yi gis naa leen Azo gis naa leen ñëw na aliloo ñëwal parce que dafa feebar moom it benn activiste bu nekk Kaolack la su ma limee damay juum mais yaa dem Kaolack ñu ñëw ñëpp mënu xamoo leen en tout cas toute la population de Kaolack ñëw na société civile ñëw nañ gis naa waa FRAPP seen taxawaay bu ñu ci am pour wane leen affaire bi dafa dépassé ànd naaw la ànd liggéey la yëpp ñoo koy xeex mais di leen wax tamit les étudiants ils étaient hier ils étaient présents gis naa sax ñoo xam ne ay jeunes yoo xam ne ne nee nañ dañoo gis ne un jeune la ñuy jaayu doole moo tax ñu maa ngi maa ngi leen di remercier ndaw Sénégal yëpp maa ngi leen remercier maa ngi jot seen message de félicitation àdduna bi yëpp laa wax war a wax sax nag parce que depuis le Maroc les Kaolackois ak sont au Maroc dugg nañ ci mais am na ñoo xam ne sax dëkkuñu Kaolack bokkuñu Kaolack mais dañu am sympathie Kaolack rek gis naa ñu ci noonu la mbir mi yittelee partout dans le monde ñoo ngi may soutenir ñu su may soutenir yooyu yëpp nag maa ngi leen remercier du ma fàtte suma famille professionnel waa yi de gis naa ñoom ñëpp ñu ngi may jàppale message de soutien yi maa ngi leen di maa maa ngi leen gis naa ko la ma famille religieuse du ko fàtte ñoom ñëpp ñoom ngi may jàppale donc di remercier tamit sama famille politique ñoom ñëpp daal sant naa leen gërëm naa leen di terminer par message di wax ne monsieur Ousmane Kane ak monsieur Ahmed Tidiane Diaw ñi nga xam ne ne kenn Ousmane Kane c'est le président du conseil euh, c'est le président cour d'appel ne ko nit ci lu muy liggéey lay juume te ku dul yàlla da ngay juum man damay juum ñun ñëpp dañuy juum juum reconnaître juum nga dellu ci ginnaaw du def lu dul màggal nit ki ñu ngi koy ñaan li nga xam ne ne ordinance bii mu jël bi nga xam ne ne tey mu ngi porte préjudice waa Kaolack mu dellu ci ginnaaw comme nu ko homologam naataangoom bi nekkoon Podor ak Saint-Louis defee defoon en 2014 di wax monsieur Ahmed Tidiane Thiaw préfet dañ la teg fii nii pour nga doxal yoon yoon bu njëkk ci yoon nag mooy la loi la loi vous donne l'obligation de nous installer dans les quinze jours qui suivent notre proclamation def ko soo ko defulee nag yaa ngi engagé sa responsabilité te su combat laa nag dinañ ko mu ne en respectant les voies et moyens yi ñu yoon jox incha allahu rabbi jërëjëf euh, Ahmed Youssouf euh, Bengelloune mbokk yi moom la ñu invité woon moom moo moom la ñuy wax ni moo gagné euh, conseil départemental bu Kaolack te ba léegi nii installé guñ ko loolu sax tax na ni ki démb Kaolack ñoom amaloon benn benn marche mbokk li mu nekkoon seen émission pencum réew bi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ngeen di sant ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw Dial mu nekkoon ci wàllu machine bi jërë ngeen jëf jàmm ak